Idrissa Seck moom mi euh, président parti réew mi ci ligne bi Idrissa Seck ñu ngi lay nuyu. jërëjëf ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax. waaw lan mooy say euh, kàddu ci euh, li nga xamante ni moom lañ xëyee tey muy faatu Ousmane Tanor Dieng dégg nañ ko ba ñu xëyee ba léegi ay seede ci nit ki li mu représenté woon fii ci senegal rawatina. waaw muy nouvelle bu tiis bu xëy dal ci suñu kaw ñun ñëpp ñu koy jaale waa Sénégal yëpp di ko jaale njabootu boppam. di ko jaale njabootu deretam ak njabootu politique am yëpp ñi mu àndaloon ci àddina ci wàllu politique di ñaan suñu borom mu xare ko aljanna yi gën a kawe mën nañoo seede ci moom wala ñu dëggal seede yi nga xam ni bi ñu xëyee ba léegi ñoo ngi koy dégg ci nit ñi mooy nit ku baax la woon nit ku dal la woon nit ku xamoon état nit ku bëgg réew mi nit ku mënoon diplomatie mën a séq ak jàmm séq ak teraanga ñi nga xam ni ñoom la séqaloon àddina yépp te loolu mën nañu ko seede ndax yàlla def na moom nekkoon na ci pouvoir ñun ñu nekk ci opposition jamono di dox ba ñu dem ci pouvoir moom mu dellu ci opposition am ay jamono ñu àndandoo ñun ñëpp séq liggéey bi ci pouvoir te anam yooyu yëpp li mu ci daan feeñal mooy mag dal bëgg réewam di dox jàmm di dox lu jëmale Sénégal kanam loolu lañu xam ci moom man nag ma mag ñu bari seede nañu ko donc dañuy ñaan yàlla mu xare ko aljanna yi gën a kawe te may njabootam bi fi des xolu muñ bu ñu muñee nattu bi ndax dina doon wéetaay ci Sénégal bokkoon na ci keno yi nga xam ni yu ñu gënoon a ràññee lay ci wàllu politique ci Sénégal jërëjëf. président Idrissa Seck ñu lay gën wax euh, ci ci intervention bi waaye ñu gis euh, euh, bi alternance amee en 2000 ñu wax ne de concert ak moom ci wàllu transition bi. amoon na rapprochement bu ñu defoon seen diggante yéen ñaar muy jaxasoo boo xamante ni jaxasoo woon ngeen ko pour l'intérêt général lan lan moo la gënoon a marqué jamono boobu ci moom ci wàllu posture. ak ci wàllu attitude. Je li ma ci mën d'abord moi d' suis mooy puisque njàngale mu rëy ci séance passation de pouvoir dans bi nga xamni yalla na en 2000 ñu ñëw ci pouvoir xeetu conseil bu nek avec énormément de générosité énormément de rigueur énormément de connaissance des problèmes de l'État et énormément d'anticipation sur ce qui pouvait survenir à cette station extrêmement délicate yooyu yëpp ñu waxtaane woon ko yalla dogal ñu séqoon jamm ju mat sëkk comme ni ma ko waxee amul benn posture politique amul benn station politique mo xam ñu and ci pouvoir wala ci opposition wala mu nek pouvoir ma nek côté beulé bon xajamal suñu diggante vraiment mu nekkoon mag bi baax nekk xarit nekk wëllëre ba xam yu bari aussi yoo xam ni ñi defal na ko Sénégal ci sutura ci ay euh, relation internationale am ak position bi ko yàlla joxoon surtout ci international socialiste ak jamono bi nga xam ni socialiste yu bari ñoo jiite àddina mu nekkoon nit ku bëgg réewam nit di ko jaalee itam euh, monde sportif bi puisque yàlla dogaloon na ma xamoon cofeelam ci sport bi xamoon cofeelam ci équipe nationale surtout vraiment di ñaan suñu boroom mu defal ñu ndam ci Euh, Coupe d'Afrique bi ba ñu mën ko ko puisque mérité nako, nous musul seetaan équipe nationale euh, ginnaaw il était toujours à leur côté donc vraiment il y suñu borom bu baax mu xare ko aljanna jërëjëf